lorsque j'étais venu. waa su ngeen fàttalikoo yow njiitu réew mu Russie ñëw naa fii ci bi nga xamoon ne dafa amoon blocage ngir rek wàllum pepp mi nga xam ne moo waruñu Afrique ñu mën koo daal di indi loole sax mi ngi amoon ca Sotchi foofee ca la ñu waxtaanee ba ci nga jëlee ndogal waaye tamit dikkat nañu fi ci waxtaan bi nga xam ne moo delluwaat ci jafe-jafe yi am ci diggante ñaari dëkk yi. li mat a wax rek mooy ni conflit bi yàgg na naam waaye tamit suñu mbébét daal wala médiation bi nga xam ne moo tax ñu ñëw fii tey ginnaaw ba ñu seetee Zelensky mooy Afrique dafa am volonté ngir mën a dox tànku jàmm ngir saafara mën a am ci li nga xam ne kat mooy conflit Ukraine ak Russie bi nga xam ne kat la cay faatu bari na kon tam na ko samay naataango waxee kon dal leen ci fekk si ngir tamit ñu mën a indi ay saafara ca na mu gën a gaawee. favoriser un climat de dialogue entre les parties.